bongo maan yi ñëpp duñu góor jigéen. Mm-hmm. man de xaw ci ay góor jigéen. Pawlish loolu la wax nee na xaaj bi. man de ñi ma xam ñëpp ay góor yàlla lañ waaye xale yi mu ñëw. Mm. dañu xaw a ami téléspectateur ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñi nga xam ne yéen safo safoo seen chaîne bii di Télé Sénégal TV am mbégte bu baax a baax di jàkkaarloog yéen tey nag damaa jàkkaarloog ki nga xam ne kenn dootu ko présenté fii Sénégal euh, li doy waar nag mooy damaa ñëw seet ci sama fans ndax man day toqal ci sama xol bi neex-neex. <laughs> ñu koy wax Ouzin mbaay xam naa dañ koy daal di baay mu daal di nuyoo rek. Euh, moom nag mooy président de la république de toutes les bongoman <laughs> <laughs> nuyu nañ la. waaw first maa ngi lay fay. di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sangu-sangu yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanalee tarixa yépp seen xalif général laayani tijaani xaadari canaba canabay bàyyiwuma ñëpp ba ci suñu mbokk chrétien yi abe jamako la abe jamako la mooy lan kooku mooy kan euh, kii wu yi nu mu kooku kooku nan doo Abbé Diamako. <laughs> waxal lu la neex. Abbé Diamako. ni <laughs> nii yaa moome vent. di gërëm ñëpp. defal la sax. di sant yàlla nag bu baax di gërëm Feuz. d'accord sama xarit di nuyu waa Télé Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay waaw. alors euh, lan nga sekk ak waa RIE3 ndax ñun dañoo ñëw dugg si rie rek coow li bëri. fekk fi ay xale yoo xamante ne ku ci mel ne Awa Ndiaye dafa mel ne moom moo yor si club bi de. waaw Awa njaay nag moo yor si club bi fii ci RIE3. RIE3 kooku sama jarbaat la. Mhm. mooy doomu ndeysaan la Daba bu Sidi. di mm-hmm. hmm? ko mm-hmm. baax may ñëw di fréquenter fii seen kër ñu taqaloo nag ay kër fii 118 bii la sama yaay génne àdduna mm-hmm. kon bii dëkk nañ fi 12 ans man aw ma fenn fu may fréquenter ci àdduna lu dul kolabaan ak fii ku may wër sax ritura la may seet d'accord ndax sama xarit tamit fii la dëkk euh, muy met sot bu Waly di nuyu nag koñ bi yëpp di jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxo Euh, saa yoro xam naa bu ma ko joxee mooy chef de quartier bi mbokkum nday Pape Naas mu nuyul ma ñëpp. d'accord alors euh, ñu gis lu jafe si yow parce que d'habitude Bongo Mane comme liggéey métier bi ngeen nekk nii. Mm-hmm. Euh, gisuñu ci ñuy def faral di di di di farataal liggéey. Mm-hmm. ñu gis la nga am jom lool yor sa yëfu bopp di xëy kolobaan comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. yaa ngi ci yëre yi yaa ngi ci dàll yi Ouzin. xam nga benn métier worul dëgg te aar bi ni ma koy waxee yàqu na yàquwul yàqu na sax. l'art c'est une vieille tradition ludique kenn mënu koo yàq waaye xale yi mujjee ñëw yàq nañ ko te benn métier wóorul dëgg la li tubaab bi naan nit da nga war a am jom juróomi dëkk ngi ci réew mi boo ko defee noppalu ngor gore jàmm gën xaar yàlla ak mer muus jaam bi bu meree dafa war a euh, teeylu ànd ak xelam te bañ di gaawantu boo meree da ngay muus nit ki da ngay ànd ak ngor te gore te am jom tubaab bi dafa wax ba wax ci jom Mmh. na la jom c'est le point d'honneur de l'homme préférable à tout autre. mais mi moom moom dafa jàng ah. la jom donne l'homme à souffrir à sacrifier sa vie sa recherche. mais bu nga maa ni yëpp pratiquement ñoom ay ñam ne. mais non moi je ne suis pas un illettré. <laughs> j'ai fait les bancs. waaw j'ai fait les bancs je suis un griot. Ah, ah. mais maintenant je fais les bancs. loolu dafa raar. parce que parce que tamit j'étais en autorisation. qui me permettent d'organiser dans tous les établissements de la région de Dakar des manifestations culturelles et théâtrales. J'ai fait le drame. J'avais trois pièces à proposer les enfants, mmh. le bon élève et le mauvais élève. le comportement d'un élève pour atteindre son objectif et son but. waaye yow déggal lii. xale bu nangu jàng ak xale bu nangoowul jàng daan ko théâtre ci école yi. ndeysaan macha allah euh, am na solo li may wax sànq rek dama ko ne dama gis lu jafe si moom muy nekk liggéeykat te yombut mais jafe ne tamit nga gis bongomaan comme li nga ne géwél boo xam ne jàng na yombul te Ouzin mii. macha allah boo na ci un plus un sax dañ naan la génneel ma numéro. mu ne la lan. dañ naan la génneel ma numéro diw. <laughs> waa eh génneel ma fii numéro Sidi wala génneel ma numéro Sayoro wala génneel ma numéro diw. d'accord waaw mais Ouzin sa problème ak Bongo Mané lan parce que dafa mel ni yéen ci seen biir euh, juboo woo leen déggoo woo de. non man Bongo Sénégal yëpp nan laay nekkee njiit nekk le président de la république de toutes les Bongo Mané di am xaar yàlla ak kenn tous les bongoman Mané c'est mon ami. Ah, ah. ñëpp mais jox nañ la cër bi nga xam ne war nañ la ko jox. jox am nag ñu ma jox cër. waaye ñi ma joxul cër moom. Mm-hmm. aw man ñoom benn affaire ndax man ku ma yëg ma yëg la. Mm. ku ma yëgul du ma la yëg. dëgg la. bëgg xaritu njaago du ma tax a sant mendi. Mm. ku ma yëg ma yeg la ku ma yëgul ma yëg la. ku ma la ku ci mel ne Babacar Bongo léegi juboo ngeen. Babacar sama rakk la sama xarit la léegi juboo nañ. Mm-hmm. barki démb maa ko doon ruubee rek aéroport. mais wax dëgg yàlla fekk naa ko ci xew rek Scat Urbam. Mm-hmm. barki démb teral ko. ci télé laay wax télé Sénégal. ok bu dul dëgg nee na ma du dëgg ñu nekkoon ci xew mi dinañ témoin. Uh-huh. may ko fa xaalis bu bari. Mm-hmm. waaw d'accord dama dama sa dégg say biir wax nga ne bëngoo bëngoo léegi même si raskat yi ñu ngi ñu ñu ngi ci ñu ngi ci ci affaire bi ñooñu bàyyi nañu wala ñu ngi ci ba léegi. dafa yàqu mus ngaa dégg tëggkatu sabar ñu koy jiiñ borom ñaari tur yi bi tëgg sabar commencé ba tey. non non non mus ngaa dégg tëggkatu tama ñu koy jiiñ borom ñaari tur yi. non fecckat bu góor. Mhm. mus ngaa dégg Papa Ndiaye cu fecc na fi. Mhm. ba tey mi ngi fecc musul dégg borom ñaari tur yi. dëgg sunu papa Mori Cuun bu Youssou Ndour fecc na fi. àlla sekk. àlla sekk galo cielo. ñama ñama. sama xarit la. ñooñu ñëpp fecc nañ ba bàyyi musuñoo dégg borom ñaari tur yi. léegi xale yi ñëw ñun ñu defar bongo xàll yoon wi. ba yoon bi mat. ñu bëgg fi indi affaire yi ñeme du ma ko nangu. vraiment vraiment. waaw kenn du fi nooy. d'accord alors xam naa ci loolu laa jaare sax gis nañ fi Pawlish Mbaye mu génn yàggul dara. Mhm. ne Bongo Maane ñu ci bëri ay góor jigéen lañ. borom ñaari tur maa ngi tuub ci kàddu gi euh, ma gis ne def ci cité sa tur muy yow ak vie ñaa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim mhm. laa ilaha illa allah sayyidina muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nit adduna kenn dëkku fi mhm. te adduna yàggul dama woy benn morso na ngéwal nañu waxtaan mhm. kaa leen ñu waxtaan mhm. sëyu góor jigéen yi ci réew mi ñoo koy tëgg guddi town yi ci réew mi ñoo koy tëgg bëccëg town yi ci réew mi ñoo koy tëgg dellu si waat na ngéwal xaalis bu mu tax ngay jaay sa bëgg xaalis bu mu tax ngay jaay sa deret mhm. du ñu nangu kenn di ci foo ba yàqal nu ko mhm. wala sax bu nuy foo du ñu nangu nga di ko filmer ba siiwal ñu ci géwal c'est un noble mhm. nous sommes les héritiers de nos ancêtres les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront l'art de parler n'a pas de secret pour nu tout ce que nous savons nous les jeunes griots nous l'avons appris dans nos ancêtres. mais man gisuma Ouzin Mbaye tey de benn intellectuel laa gis. suñuy maam la nu jàng lépp lu ñu xam ñun géwël yu ndaw yi te suñuy maam mosuñoo dégg nañ laal nopp. Hmm. xamuñu sox borom ñaari tuur yi. c'est ça yëpp ay noble lañ. Hmm. Pawlish wax na dëgg. Hmm. waaye du ñëpp. tey jii jotaay bii ñu toog sunu grand yi toog. ñu fekk ñu ñun ñëpp ñu toog Ouzin Mbaye teg. maara day taalim butéelu sàngara di naan nit yi romb buñ demee dañ naan gis nañ ñoom Ousseyn Mbaye ak ñoom saa yoro teg sàngara di naan Sénégal day généraliser nan lañ ko wax globaliser. Mm-hmm. du ne diw laa gis muy naan waaye di ci dugal ñëpp. ñëpp la ciy dugal wala. bongo maa ni ñëpp duñu góor jigéen. Mm-hmm. man de xaw ma ci ay góor jigéen. Pawlish la wax nee na xaaj bi. man de ñi ma xam ñëpp ay góor yàlla lañ waaye xale yi mujjee ñëw. Mm. dañu xaw a nooy tuuti. duma xeex du ma du naka la góor di jëlee sa fii. rocci ruusal ko ba mu mel ni deretu bëy. dañ koy naka la góor di bënnee bakkan. <laughs> naka la góor di bënnee làmmiñ. vraiment lan moo ko fi jar ci këru àdduna ci boobu li nga xam ne àdduna yàggul. dara jaru ko. man de bongo maa ni ma xam. Mhm. ku mel ni Galas Bongo. ku mel ni Ousmane Bongo. ku mel ni papa Bongo Tëngéej ku mel ni Saneex ku mel ni Fallou Petit Coppet ku mel ni Karbala ñooñu ay góor yàlla ak ñu bari bu ma limee mun naa fi fanaan ñu bari ay góor yàlla lañ mais am na fi ñu bari ñu mag ñoo limul xanaa kon da nga bëgg wax ne ñooñu ñoo ko nekk man daal ku ma limul aw mag yow affaire ok waaye ña ma lim moom xam naa ne ay <laughs> vrai homme lañ dama génnee slogan bu bees gét gi daas gét gi càkkin waxal loolu. mais loolu amoon na fi. waxal gét gi daas gét gi càkkin ma tekkil la waxal. git gi taas git gi tagit borom ñaari tur yi buñ ñu laal buñ ñu jege git gi taas git gi <laughs> voilà <laughs> Ouzin ñu gis ne li ngay taasoo wax naa ko sànq euh, boo taasoo day neex nit yi day dugg ci xolu nit ñi personnellement man dama ci boole sama bopp. wax kenn du ko man da nga koy jekku ndengeen ko dóor ko mbot mu dem ardo looy bind la wala dafa am ku lay bindal wala dangay xalaat di wax. ku juddoo ci daqaar dafa war a yaroo ci daqaar màggee ci daqaar kenn du la laaj forox ndax toll. toll lay def <laughs> loolu dëgg la toll ngay def. waaw. <laughs> kon yow kenn du la bindal. déedéet man samay raba may coqotaan naan ma Ouzin waxal. Mhm. ñoo lay wax loo. su may waxate ba mu yàgg dee ma déglu di ma bàyyi xel ma di la wax. déedéet dee ma déglu di ma bàyyi xel. Mhm. yéesi yi ma yor. Mhm. moo gën a bon ci yéesi yi. samay raba may coqotaan naan ma Ouzin waxal. ok. teen bu bukki ne ñaari gaynde waaf. Hmm? ab ragal du fa naan fit wa day maas dëgg la cuujum ceeli du ko këf ndax anton na ko waaye lancum gaynde ko ko naru luqi mu xiiru sa kaw gaynde gu lanc di hmm. sàq mi ñame nga ko luqi déedéet man maay gaynde gu lanc ci biir taasukat yi dëgg la lu ma wax tey du ma ko wax suba dama la koy nangul waaye taasukat yëpp ñetti taasu la ñu am hmm. yaa ngi rëq waaw aawa yaay aawa yaay yaay garmi yaay bete bete ñaareel tànn si ba ba kañ <laughs> waaye du ma te yow ñuy xalaat. te eh, eh, yow lu ne yaa ngi ko fi indi. loo damaa romb ñetti pël ca kaw pom ba ñetti pël laa romb ca kaw pom ba. Mhm. kee yor soowum kàcc. xam nga soowum kàcc. bu baax kee yor soowum maadi. kee yor soowum dax. ba ñu demee ca marché ba doon jaay ñoom ñëpp danoo jaral dem ñibbi. <laughs> ki kar nga di ko daw doo dadeeg moom. Hmm. ku lekk loo moomul sa fit du toog. Hmm. waaye ku tooñ ku la mën da duma. dëgg la. dem naa Gabon dem Cameroun dem Côte d'Ivoire ñëw fii ci Sénégal lépp doon njëriñ. ndeysaan bongo maan yi soppeeku leen baax dafa xew. ndeysaan fii ku fi bon ñu romb la nappaaje la nelaw dalay yomb asgor du liggéey di ko yàq mbaa liggéey di ko nooyal. oh nañ dëgër dëgg <laughs> koy dëggal fi yàggul dara mu am ñu jóge fële ci États-Unis ñëw fii di wut jël ay cours ci yow. te nekkul yow kese yaa fi nekk bongo ma kon li ngay wax nii dama koy confirmer. damaa am ay gan yu jógee États-Unis waaw seetaan ma ci Facebook ut sama numéro ay tubaab. na ma Ouzin mbaay lakk ma ay anglais. Mm-hmm. ma ne leen the boy see me and laughing I see her. I know her I tell her. the boy so yes ñu ne ma yow mii lañ doon seet xam nga ñaata lañ ma doon fay. chaque une minute. cours yi ma leen doon jàngal fii Bessayawoo. chaque minute ñu ngi ma doon fay deux cent euros. macha allah chaque une de temps. ma def ak ñoom cinq jours du million ñu dem ñibbi léegi ñooy bongo États-Unis léegi tubaab yooyu léegi mokkal nañu ba ñu. mokkal nañ kat càkk gin càkk càkk waaye léegi bongo maa ni kaka kaka kaka rek. non dëgg naan mooy roi. jànguñu ko. dëgg la loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. damay faral dégg nga koy wax sa biir wax naan dañ ko tarbi da nga tarbiwu dama ko tarbiwu. waaw man simb naa. Mhm. cinq ans. tudd raxaan. adduna yëpp xam nañ ma. tëgg sabar. tëgg sabar mën tàggu mbaar. mbarta bi nan na ma sam bi ndanda ndawranda ndawranda bi bi nan na ma sa bi ndan battans numax kikiis mm. wuranda mbax bi ndanda mbax bi ndandanda mbax bi ndawrandam mm. bi ndaj wurandan wura bi ndan wura bi mbasa bi naj mam xabaan ba ca géej ja loo koy doye gaa yi na lekk loolu ñorul baaxul loo koy doye ñu na lekk mhm. wurakita tapatan tabra takin gaa yi na kittan wuraki tërkin baxtaan tabra takin ñu na pate waaw waaw géwal piir la dëgg la xale yee moytu leen góor dëgg la am na doole mën na xeex bu dóoree gaañ dëgg la na xale yi ñëw ma jàngalaat leen incha allah man yamuma ci aar j'ai fait drame man su ma toogee di wax sax day neex dëgg la man rek maa fi toog di wax lu ma wax ñu tiktok ko. loolu dëgg la. Sankara Mbaye. lu ma wax ñu tiktok ko kon xale yi nañ jàngi aar kenn fa ñu dem démb ñun fa ñu dem démb. Mhm. ñoom ña ngi fay doog a dem tey. Mhm. dëgg la mais nag télé yi ñu tooñ. télé yi ah. ak chute yi. déedwaay. aar day mokk. yéen ku def deux jours aar sax ngeen woo ko. dëgg la jaay ko. waa ña ña ña mu la ay tànkam. loolu dëgg ba ñuy génn télé amul sit amul. dëgg la ñu tudd doxu mbedd mi dox ko sonn ko. fu malaat am na lu ma mus a wax. muy lan. en 96. Mhm. daf ñu romb. mu ne booy lii bu yeboo ngeen teel ko couvrir. Mhm. man taabaan Cheikh Waane ñu yor bongo di dox. fu malaat laat gaare otoom du ma ko fàtte mukk. Mhm. fii ci stade bi. daf ñu ma ne lan la mun a booy. maa ngi leen di seetaan fan yi ci làmb yi boobu ci làmb yi la ñuy dem ñun. Mhm. lutte Nicolaï lu mu mus a tëgg ñun lay engagé. Mhm. ñu dem fu malaat nañu lii bu yoboo ngeen teel ko couvrir ndax dina dem ay jamono dina bari torop ci dëkk bi. ñu bari dinañ leen toppatoo dëgg la dëgg la. tey xale yëpp ñëw nañ ñëpp ngi bongo dëgg la ñii di meew ñii di chocolat <laughs> ñii di beurre ñii di poobar ñii di macc tuñ. waaw ñii di lozaaw man looloo ma ci gën a métti takk ndik way ñii koo ci gis xeeb ko. dëgg la. kulli nafsi zaayiqatul mawti. dëgg la dëgg la bakkan bu mus dund. di mos dee. góor day góore. góor nga war yeewu njël. Mm-hmm. bu fajar yeewu julli. Mm-hmm. ñaan ci yàlla. bo ngomaan yi gis nga ñu ci bari talu ñu sax jabar. dëgg la amuñu ko tey faatu suba mu ji kinne mhm. gannaaw suba joor dañ leen koy bàkkee fu ñu dem doxaan. doxaan fa dëgg la. dañuy doxaan ba doxaan sa géer te ku doxaan sa géer yàq. dëgg la bu fajar jotee ba ganaar ya sab sunu kër. que mm. ñoom Ousseyn Mbaye déggal maam di yeete bërsët na. ndeysaan. boo yeewoo yee ma yow lu ko waral xëy suba. Mhm. xëppoo sa ndox taal sa oto julliwoo. Mhm. naan yaa ngi liggéey ba tey yaa ngi nelaw. sa waaji bul fàtte yàlla. Mm-hmm. fi ku ku fi am moo la jàppale. pour laaw rek kay ñuy waar nag wax dëgg yàlla. àjjuma jotee deux heures wërël wërël wërël boutique fépp tëj gaay na rap rap ngir lan tisbaar tëj sa buntu boutique dem julli. njolloor war na la war na ma kuy jullit war na la. Mm-hmm. bongo maa ni dee leen julli. d'accord dëgg la. dee leen góore. Mm-hmm. leen saraxe. ma dénk leen tey benn sarax. muy ba saa boo xëyee di saraxe fanweer. da ngay gudd fan. 150 gudd fan. Mhm. sëñ bi moo ko wax saa boo xëyee xam nga fanweer du dara. Mhm. wala ñetti ndox. Ah. te ñetti ndox yu fukki dërëm mooy fanweer. dëgg la waaye fanweer lañ ci taamu. maa leen baaxee bii saa boo xëlee boo leen xëyee. incha allah ba pare. waaw na ma am mu am ku am ma am. waa tey nag Ouzin da ngaa indi beneen facette. beneen fa mel ne nga. man léegi kon dañuy dugg ci actualité muy euh, barki dem ñu gis Kaolack. Euh, benn borom ñaari tur yuñ fa taal mu am polémique. ñii naan waruñu ko woon taal ñii naan dañ ko waroon def bien avant muy faatu yow loolu loo ko gisee. woo dëgg yàlla yàlla rek a war a taal. Oh. yàlla rek a war a jéggal doomu aadama war sa taal nit. Mhm. même boo ne boo demee ca yàlla mu lijjante ak yow mais kooku isaat nañ ko fii. fóot nañ ko ba pare. fóot nañ ko ndax ñoom waruñu lakk ñi ko lakk nag. xaw nañu def erreur. ok ndax man di ko taal. ok contour nag góor waaw ah. baaxul. Mhm. ci réew l'homosexualité. Ah, nan la ñu neex la neex. l'homos l'homosexualité. waaw waaw. l'homosexualité. waaw. yàlla def la góor nga ne jigéen la. Uh-huh. mais dañ ko waroon baaw ak yàlla. mu lu muus gàtt ngeen ko gudd. muus waaw. yow laay laaj lu tax muus gàtt ngeen ko gudd. non loolu dama la koy delloo. yàlla laaj boobu dama la koy delloo. yàlla la picc bi lu muy naaw yàlla la lépp lu am yàlla la. dëgg la. dañ ko waroon bàyyi ak sunu borom. bu demee mu lijjanti ko mu lijjanti ko d'accord. waaw. Euh, dama mës a tase ak yow di waxtaan ak yow xam naa dañ naan wax waxaat lu bari wax ndax ndax wax nga ko fu nekk muy sa digganteek Marie ba ma ba may wax ak yow da nga ne ma fi mu ne nii lu ma nit wax lu laaj ma sama li ma Waly sekk defal du ma la ci tontu xam naa ne wax nga ko fu ne sax waaye wax waxaat du bëri wax. Waly tut sa digganteeg Waly. Mariasin may sa bige may sa bige maar. aji ndoowa nga des ndóog jarka dem ba ca Lambaay. <laughs> bayti ma jigéen boor Ali ma jigéen boor Kewe yaay njekkan Njaay. ndeysaan ku mu bokkal dimbali na la. ku mu bokkal sagal na la. <laughs> fu junneem yenn soxla la yóbbu. <laughs> Waly aw ma seen fay. ndeysaan Pape Diouf barki démb la ma way man ak moom ñu def morso way Amadou Ba. Amadou Ba. waaw lan ma jox ci ay millions ñemewu ma ko compter. Pape Diouf. waaw. waaye na nag mere naa da ngeen di politique Ouzin Mbaye. waa ak lu birig. waaw mere naa leen torop. déet waay. waa ak lu birig. dispensaire naa leen TikTok ñooñu. lu ñu ma soxlaa lu ñu daj pour jot ma. waaye ba liggéey bi jeexee ba tey. Mhm. su ma leen woowee 62 appel du ñu jël. ah déedéet loolu. wayaanu ma ñaanu ma hmm. damay jàmm sante waaye ñoom dañuy def bu tey neexee gàttu ëllëg. loolu nañ ma soxlawaat. loolu baaxul. ara nu mu tudd. ara ak Deysa. ara ak Deysa. Deysa leen ma. <laughs> woo leen ma gaaw. falaa yam est-ce que lii euh, ngaaka bi leen de doo ko may lu mu wax. parce que ngaaka comme ñi ngi toll ci. classe ngaaka sama xarit la. mais li nga wax axlu biir nii dinga may ngaaka kon ci tegsam yi mu mën a am. maa ngi digir digir maa ngi digir digir dog sama bopp koñ. waaw ndaxte dañ ma tooñ. Mm. waxtaan ak samay gaa sama waay. waaw benn xale romb ma sollu gat sama xel nar ci gàtt. ma digir yi woo ko wax ko suma soxla xale bi bëgg maa atte ñàkkal bëgg maa fuural xale du ma fuural man nar ko dóor nar ko gaañ nar ko wax lu ñaaw sama gaay yi jàpp ci na ma fis bul faale yaa ngi dégg bul faale eh? bul faale awa di bul faale maa ko tëgg yow yaa tëgg loolu. sabar boobu. mais loolu xale yi xamuñu ko yàgg na loolu. possible Black Soul. oui ak bale taxaw ak morso jàppal ma jàpp Youssou Ndour. jàppal ma jàpp ma ko tëgg moo ci ban. jàppal ma jàpp son boobu nga xam ne am na façon instrument bu ne. waaw xoolal ak kii siiwam bu xeewi bi si si yaawoo la yor. si la yor wala caaw moto bu yàgg. si la yor wala caaw si yaawoo. naan eh, di bëgg émission munoo ko. Sénégal la Sénégal la. waaw. siyaawoo. siyaawoo xam ne léegi ñetti téeméer nga am siyaawoo. waaw mais axlu bi rek ak lu rëy li nga def ci son bi. Euh, noo ko waxee dispensaire ci loxo golo. bu xaj woppee dafay dee loolu lan lay wax loolu moy signifier lan. bu dispensaire nekkoon ci loxo golo bu xaj woppee du ndax lan. xaj golo. danoo jubóo jubóo wuñu de. dispensaire bu nekkoon ci loxo golo bu xaj woppee du dee. <laughs> dafa joge ci kaw. waaw jinax dafa jóge neuvième étage. Mhm. ne ci suuf. waaw rek muus daw si. na ko ay waay jinax mbaa gaañu woo. waaw mu ne ko jinax lu ci munte am ba mag yàlla. parce que xam na ne bu ci desee moom mu dee. da koy da koy mbi ñamax. ñëwaatal ci sa digganteeg Waly Seck. Waly sama xarit la. Waly bu may wax ci moom du ma fi toog. du fi jógee. ñaari fan laa laa musa dem is euh, boîte. bi ma juddoo ba tey. du ma génn guddi. huit heures neuf tëdd naa. waali rek a ma woo. Mhm. na ma tey yow laa sentir lu tax duma la gis. ma ne ko waali man luñ ma woowul du ma dem mu ne ma tey yow laa sentir soirée ak Pape Diouf. Mhm. ñaar yooyu laa mos a dem soirée. musuma dem soirée keneen. xanaa Tarba Mbaye. Tarba Mbaye waay. te dañoo bokk son man moom. Mhm. première son am téye leen ko. téye leen ko ok. ma naan buum la rëcc. ku ci am góor gu baax da nga koy téye ma naan looloo ko war. waaw. macha allah. Mhm. Euh, ma yaasin ak jàll. tamit yow la. damay naan de. naanal ba pare. <laughs> lii nag boisson bii amul Europe du publicité lii Europe la am. amul Sénégal. déedéet te xanaa duñ dem ba Europe di publicité. bismillahi <laughs> rahmaani rahim and alma kaas. <laughs> Ouzin. non dafa lu la saf ba yaasin ak jàll yow la de. ba yaasin ak jàll seen kër gi doy na waar. wax daa métti. waaw dëgg la. ni ma leen ko waxee woon rek émission bi du yomb tey ndax dañoo dalal ku neex euh, baax tamit teg ci nee naa leen def ko tu teraanga la ni ngeen koy gisee nii du xaar benn géer day defal sax géer yi teraanga loolu dama koo xam ci Ouzin. géer ñi sax dama leen di teral. waaw loolu dama koo xam. doole géwal géer. dëgg la. dooley saxaar raay. Hmm. maa njëkk way générique ci Sénégal. ma yaase nag jaal seen kër gi doy na waar. nay xel jamonoy bàyyi ci xel. Hmm, hmm. ma Yacine ak Dial jur nañu ñeenti doom. Mhm. kële soppey étudiant la. waaw ki ne saw day mbaraan. seeni football la gëm ami le xaritu baay bala cey lii. fi toj na de maa yàgg nekk star. non looloo neex. xajoo bu maa di naaw maa leen gën a nekk star fukki. yoon dëgg la damaa gën a simple man ñii man la ñuy wër. dëgg la man ñii ñooy sama xarit xale ndaw. dëgg la maa gën a oyof ci àddina. Mhm. la simplicité est une belle correction. mais nag Ouzin am na lu ma gis ci yow. waaye ku ci génn télé ñaari yoon. Mhm. mbàkk tuuti te boo demee ginnaaw raay gi xamuñu la. Mhm. loolu dëgg la. mais li ñu naan musique da lay tukki loo sans passeport jokk sa tur nga wër monde bi sans nga bougé fi nga toog. ku woy loolu Youssou Ndour. Waly. Waly Seck. musique da lay euh, wëral monde bi. man daal damaa am xew damaa bëggoon nga ñëw jël sa wër. balaa nga naan sëg. da nga koy coupé mën na la bi ñamax. nga woowaat ma Ouzin lu tax nga ko coupé ma waa léegi ñaata la. mën na la ala. ok noonu la. waaw loolu mooy dëgg. Mhm. loolu mooy dëgg. su ma jógee fii tey publicité wu ma maa ngi 16h TFM. incha allah tey direct. dëgg la su ma fa jógee maa ngi dem kër kilifa gu mag tey war fa tëgg ngénte point E. macha allah waaye du ma wax tur bi. Mm. waaw. dëgg la waaw tey incha allah bu neexee sama waati wala ard événement wu Mbathio Ndiaye bi da nga cay dem wala woowuñu la Mbathio mm-hmm. daw ma ci daraam wowul bongo man daw ma ci daraam Mbathio moom aw ma moom benn affaire waaw mais nee na bongo am nag yenn yi amuñu fa place la wax looloo ma metti te chaque jour mu ñëw ci xew laaj ma borom xewut borom tur bi kii nu mu tudd ma wax ko bi mu wayaan moom Mbathio barke alxuraan mbaaco fekk na ma ci xew ba tàyyi ma tëggal ko mu pare daw du ma sédd Mbathio Ndiaye amul ngor ci xaalis day daw <laughs> sama xarit la de xanaa xamoo man sama taaw bu jigéen day gay laa ko tuddee. Ndeye Gueye fecc kat Ndeye sama doom bi ma njëkk a gis. tey papa booy jinne waaw kooku tamit nay seeti turandoom. ah yow moom nga ko tuddee mais Ndeye Gueye du fas du ko seet si. musu ko gis. ah non wax ni. ku la tuddee doom ma man tamit maa seytaane bàyyi samay mbok di tuddee ay Ndeye Gueye boobu ba tey gisul. ñëw na ñëw seet si turandoowam. man dëgg ma yàq de man ku may mere nag ma mere ci dëgg ma mu may ma xaalis. waa mais li nga wax dëgg la. wala mu naan allo turandoowam waaye xamul sax ni turandoowam toll. non loolu rafetul. ndey gay loolu rafetul. dëgg la. ma gisee ah indil ma sama turandoo ma la koy indil. dëgg de kon doo ko gis. dëgg la. man Ousseyn dama ko bëgg xanaa ah, kon événement bi dem kon invité wu. deewu ma. invité wu la. Ah, woowu ma. da doon ene. da doon ene xaw ma time waaye woowu ma. nay seet si turandoowam mais li nga def dafa rëy ah doom loolu du ñëpp. jouru ngénte la ndey laa gëj gis ndey gay. ah loolu rafet na ndey gay sama jouru te sama doom boobu léegi am na 13 ans. ah loolu naa sul 13 ans nga jënd sax benn dàll wala benn ensemble jox ko. ah oui waaye dara. wala ah, Ndeye Gueye mbaa dañ laa liggéey. <laughs> teen ko ko jox ko est-ce doo ko doo ko may ko xale bi may ko Ndeye Junior. <laughs> voilà xam naa ne ay ma seetaanee tey ma dee léegi mu woo ma téléphone. waaw Ousseyn Mbaye li nga ma waxal. mais ko wax dëgg la. Ndeye Gueye nag dëgg laa la wax li nga ko wax dëgg la. dama ciy ànd ak yow dëgg bu booyi nopp. dëgg la seet sil sa sulu sa sulu waxul dëgg rek wax leneen. moi j'ai de l'argent. am naa xaalis. dëgg maa ngi dundal sama njaboot. Mhm. yaakaaruma ci yow dara. Mhm. nit a ngi tuddee doom Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam te gisuñu ko. dëgg te Seydina Muhammad nee na sama turandoo boo ma tuddee maa koy yor ak juróom-ñaari nitam dugal leen biir àjjana. Mhm. te dañ koo wóolu. Mhm. gëm ko. Mhm. boo nee yàlla ne Seydina Muhammad. xanaa xamoo dafa am loo xamante ni yàlla du ko gis mukk. muy laa koy laaj lu yàlla dul gis mukk. non loolu Ouzin dama la koy laajaat yow tamit xaw ma ko laaj ma lan. tey ñu ko dimbalee rek wax ñu ko ñu xam ko nit ñi commentaire. Ah. lu yàlla dul gis. mooy lan xalaat.